العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يحبون جميع الصحابة ويقتدون بهم ويقتفون آثارهم ويستغفرون لهم ويترضون عليهم ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما كانت في هذه الصفوة العظيمة من العقيدة والأخلاق والهمة والدعوة وحب للخير ونشر للإسلام نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا منها yaakaar naa loolu mooy sabab bi de ci jàngat dundu saxaaba yi mooy fexe li nekk ci ñoom ci ay jikko ak ay melokaan maanaam yooyu ñëw ci ñun waaw te yooyu su ñëwee ci ñun ñu baax le ba faw nag waaw yooyu su ñëwee ci ñun ñu baaxle ba faw moo tax ñu war di ko waxtaane jamono ju nekk waaw la ko kilifa gi waxoon mu ne balub taynsi la rek soo ko dóoree ci miir bi si kan lay dellu waaw si ci kaw njëkk defaroo balaa keneen mu ne safahatun min nuurin tudiu abra zaman aslafani aslaf ci jaar jaaru kii di albarra malik di fereeru anas ibni malik mu ne mu nettali la tuuti ci ay jaar-jaaram di jaar-jaar ji dund boo xamante ne mën na la niital sa jaarukaay te ndaw la woon ne nun mu ne ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wuy jee bi subhanahu wa taala lenn ci giiri araab yi tartaddu du il islaami daa murtad nekk ñaat ñetti xaaj ñee dellu ci jaamu xërëm ña ca des ànd ak musaylamatul kaddaab ña ca des ñoom ñu ngi des ci lislam waaye ñu ne du dootuñu joxe azaka azaka moom yonent bi lañ ko doon jox comme que dem na jeex na te yonent bi mu ngi door a faatu xilaafa Abu Bakar Siddiq taxaw te xam ngeen ne Abu Bakar ak Omar dañ ko doon tuddee ndeysaan kii dafa nekk ndox mu tàng jër ab bakar nekk ndox mu sedd guy su mbir ñëwee omar wax ci abou bakar wax ci mu am équilibre moo tax yonent bi da soxla woon ci wetam lool eh, te yaakaar naa junjoon nañu keroog ca badr wala ca waaw ca badr ba ñu jàppee gaaya ay di xalaat ah tuddoon naa ko bi passé de ah ne daal ñoom ñépp nañ leen rey comme départ la bii mooy xare bu njëkk ak li ñu def lépp ak taxaw gi ñu taxaw ne dañoo bëgg fay leerug yàlla gi yonti man li ma gis mooy ñii ñépp nañ leen rey waxuma rek rey leen noonu mu jeex am ñu leen booleel ñu rey leen waaye kenn ku nekk nañ la tànnal say mbokk waaw nga nga nga tàmbalee ci ñoom moom mu junj ne jox leen ma abu Aboubacar kele mbokkam la jox leen ko ko kele mbokk diw la jox leen ko ko kee mbokk diw la jox leen ko xamante nañu ñoo bokk mag gars yi commencé di jooy yee eh, musiba am waaw ah, musiba am yéeféer bu dégg dee moom eh, beneen problème waaye gis nga bi Abubakar ñëwee ne ah yaa Rasul ñi ay doomi mbokk lañu rek ay <laughs> ah, ay ay mbokki deret lañu soo gisee lii yëpp ñu def ko naam xeex nañ ñu waaye ñàkk xam rek waaw waaye suñu xamoon yaay kan ñu xamoon li leen indil suñu xamoon texey àdduna ak allaaxira gi yàlla jaare ci yow nga war leen ko indil ñu jaar fi raw ba fow wallaay duñu xeex ak yow man daal li may wax mooy mooy ñu kii leen rek ñu jotu ñenn ñi ñu jël leen comme am na ci ñu doon mën a jàng mën a bind daan eh, daan daan def ay bayit ak yooyu ñooñu ñu jël leen suñu delloo ma Madina jël xale yu ndaw yi ñu jàngal leen waa ah, ba ñu xàmmee mbind ak yooyu ah gaa yi wéel loolu waaye ah, bi aaya ba ñëwee ah ci kan la àndal ci ab Aboubacar laa mel parce que mbir am na nooy doxee tàmbali gi rek dara xewagul nga ne baale sama gars ah ñii daal dañoo baax waaw benn yoon dañuy ñëwaat yanaat la leneen waaye am na nooy doxeek ñoom ci tàmbali gi ñu ne gaa yi nag ñoom ñi moom dañoo kan na su seeboo ñu moytu leen waaw kon loolu la Omar gisoon loolu la Aboubacar gisoon moo tax bi lii amee muy waa ahlu ridda ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo murtat ak ñi taxawoon ne kat asaka moom yonent bi sallallahu alayhi lañ ko doon jox gaa yi ñu ne keroog ci jamono jooju ci waxtu woowu abu Aboubacar mi ngay gis maanaa dafa wuuteeg bi nga xamoon abu bakar mel ne gaynde xam nag léegi question gars yi dañoo taxaw ngir yàq diine rocci seddaay beeg pakete ko teg ne ndànk jublu ci ñoom ne wallahi law manacuuni ciqaalan kaanuu yuadduunaha ila rasulillahi la qaataltuhum alayh ana suñu bañee jox réewu lislaam bi suñu bañee jox li nga xamante ne moom mooy li jiite l'islam gi lañ ko doon jox ci azaka yeeg yooyu même tënk ba ñu waroon tënkee gàtt ga wala nag ba sax suñ ko bañoon joxe man pare naa ngir xeex ak ñoom gis nga Omar moo ne déedéet Aboubacar ñoom azaka rek lañu la ñu nga tey abu Omar moo lan Omar mooy nooy Aboubacar mu mu mu dëgëral parce que dafa toll ci waxtu lan war a dëgëral nag waaye ñu discuter discuter discuter. Eh, Aboubacar nee ko lan la yàlla wax lan la yonent boo xoon ci xadis ba illaa bi ñu àndak ak mu aqii ah, ko aha nag yaa ngi may door a convaincre parce que jàppoon naa ne ñàkk kii azaka bi rek warul tax ñu jàmbarloog ñun waaye Aboubacar borom xam-xam la leeral ko saxaaba yi ñoom ñëpp ñu àndak moom waaye bi ñu songante gaa yi gis nga de ni mu demee ah, dafa mujj leer nañ waaw ah, ci la jaaree ñu rey ki nga xamante ne mooy Musaylama eh, ak eh, kee di eh, al-Anazi mooy keneen ko doon woote ak konent moo mu ne fa qaama Abu Bakrin li yatasadda li fitnati ridda mu taxaw jàmbarloo ridda googu di murtad googu mu ne laqad xafida allahu al islaama yowma ridda bi abi bakrin bisu ridda yonent bi yàlla wa taala aar gi mu aar lislaam mu ngi ko jaay wa yawma almihna bi ahmad ibni hanbal bisu nattu ga nag yàlla jaaree ndimbal la ci ahmad ibnu hanbal ñépp commencé ne alquran alquran lan la maanaam alquran ci boppam mbindeef la imaam ahmad taxaw ne leen alquran waxu yàlla la gaa yi tëj ko ci dóor ko ci dóor yu méttee méttee metti ba am na kenn ku tudd eh, suleyman wala isxaaq wéetagum ne ko imaam waaw tee ngaa wax loolu rek tee ngaa wax loolu rek comme fitna la dafa taxaw ah ngaa wax rek mu paase mu ne ko xanaa xooloo ñi nar a ñëw ci ginnaaw ak ginnaaw su doon man dongu la ci sama àll ci sama néeg nga xamante ne lor wi ci man rek la yem waaye nii dëkk bi ñépp a ngi taxaw ñu fitnaal leen ci bañ a wax ne alquran lan la ah alquran waxu yàlla la wala alquran du lan eh, mbindeef la loolu su ma taxawee alanan fekk si leen si kon loolu màbb diine la ah, màbb diine la parce que kenn ci ñoom ñëw ci imam ahmad nee ko man daal eh, day diis ci man naam jàng naa sax waaye day diis ci man may may delloo di radd la nga xamante ne moom mooy bon boni nit yi bidaa yi taxaw di ko dénoncé wala di xamle ne diw sàngam dafa tabbi ci bidaa moytu leen ci bidaawam waa ji neen loolu dafa may diis imam ahmad ne ko ida sakatta anta wa sakat ana fa man yubayinu hada din mu ne soo noppee ma noppi waay waay ku xamul fa mata yaarifu aljahilu saxixa min alsaqim ki xamul kañ lay ràññet la diggante dëgg kañ lay ràññet la diggante dëgg ak caaxaan kon fokk ñu leeral dëggug yàlla ji des na nag ka nga xamante ne ca la moom la ci moom la mbir mi jóge ñooñu ay façon lañu am na koo xamante ne ab naafeq la am na koo xamante ne du naafeq waaye dafa jël xalaatu naafeq yi di ko doxee am na koo xamante ne ci masala dafa juum te du jubluwaayam waaye même su juumee du jubluwaayam dañuy leeral njuumte ga waaye nag dañ koy sàmmal moom dañ koy sàmmal karaamam ah, diw juum na ci masala sàngam la mu wax loolu dëppoowul ak alquran ak sunna loolu amut ak benn relation ne wax nga ci moom lu lan waaw su fekkee ne nag nitu bidaa la moom nga dolli wax ci moom lu ñaaw waaw tey ma naa sunu groupe boobu di àll <laughs> daarul muslim al islaam su ngeen ko déglu woon semaine bii passé fan yi moom dangeen di dangeen di yéeme waaye boobu nag ay xaala pulaar lañ daal chia yi dugg fa rek di nax rek ndeysaan di di di tibb sama maam yeeg sama nijaay yi di yóbbu rek moo tax su ma yeggee ma maanaa semaine bu eh, wala ma ñetti fan yu nekk am lu ma duggal maa ngi ko tuddee as-sawaa'iqu al-mursala ala nuxuuri shii'ati ar-raafida tuddee maanaa ay bomb yu ñu yebal mu jëm ci ndiggu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi bañ saxaaba yi ma tuddee Xumayni ma ne al ma ne ku sori maanaa ku sori yërmandeeg yàlla ku ñu ku maanaa ku ñu rëbb a ngi noonu waaw si góor bi gaa yi wax man leen man dafa am ko teg de waaw mu commencé nag indi ay waxam moom xumay nii wax yu bon yu mu wax ci lan ci yonent bi wax yu bon yu mu wax ci Abu Bakar wax yu bon yu mu wax ci Umar Usmaan wax yu bon yu mu wax ci euh, nu mu tuddati euh, Aïcha ak Hafsa jël Abu Bakar Omar ne ñooñu ay ay dañoo réer ñooñu ah maanaa dañuy xool lu leen arrangé ñu daganal lu leen arrangé ñu araamal waaw ñooñu dañoo juyoog alquran ma ne ko yow yaa dëppoog alquran yow yaa dëppoog alquran waaw mais nag silsila yoo xam naa ku dégg pulaar moom yan eh, ki woon incha allah dañ leen ci yónni moom waaye ay bomb la di dafa diis gann dafa diis gànn lépp nag ñu def ko rek difaan an ashaabi an ashaabi rasulillah di ko di ko jaamoo yàlla rek di ko défendre saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wata imaam ahmad ne leen xanaa xamoo ne loolee ngay taxaw di leeral caaxaani gaa yi loolu façon la ci façon jihaad loolu day ñëw di setal yoonu yàlla day ñëw di setal diine yàlla ji day ñëw di ci dindi ay lënt-lënt su ko defee nit ñi xàmmee lu wér lu wér lu wérul ak li wér mu ne xanaa yegu leen ne ab état su ñëwee songu état wu jullit ñi la leen nar a yàqal mooy mbiru àdduna rek waaye mu ne ah al wa ruusu dalaala maanaam ñi réer ñi ci niti bidaa yi la ñu bind ci ay xalaat yuy màbb lislaam su duggee ci képpaaru lislaam day yàq pas-pasu nit ñi day yàq pas-pasu nit ñi waaw moo tax euh, kàccoor boobu di xówee ni moom li mu yàq daanaa golo daal yàq ko ci tool li mu yàq ci diine ñëw jël tawxiid ah walla jël shirk def ko taw waaw maanaam soo ñëwee ah ci bàmmeel ñaan ka fa nekk wala sujjootal ka fa nekk ah yow la nga def du lan la nga def du shirk parce que xam nga ne waa ji du yàlla jeex na moom loolu mooy lan te yooyu yëpp dañ ci ñëw benn par benn sax waaye yooyu pulaar yooyu après xam naa dinaa jàppalante góor gi Eh, nu mu tudde góor gi sow insha allah comme sow la soo ñu jëlee ko ci pulaar indi ko ci olof insha allah kon eh, ñooñu ñooy saxaaba yi bi abu Aboubacar taxawee taxawaay yooyu nag fa samada sumuudal jibaal taxaw tax nekk ab montagne amaama tilkal fitna ci kanamu fitna yooyu fitna yooyu nga xamante ne kaadat an taqdi ala al axdari wal yaabis naroon naa yàq lu wow ak lu tooy wa aqada al awlawiya li qaidi al juyuus al muslima li yaqdu ala tilka al fitna wa yuciidu nnaas ila diinillah mu takk ay armée yebal leen ngir ñu fay fitna boobu delloowaat nit ñi ci lan ci aljadd wa sawaab war ibnu isxaaq mu ne bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallama faatoo azumat bihi musibatu almuslimin ma ne dëgg-dëgg jafey jafe-jafe yi euh, réyoon na lool mu ne fa kaanat aisha fi ma balagani taqul lamma tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam irtaddat al amana bi maana al qabail min arab ana kaw kaw yi nekkoon ci àll yi nga xamante ni daanaka euh, dañoo sori lan taax yi euh, ëpp ci ñoom lan maanaa daa di deltu ginnaaw mu a wa washra abbatil wan nasara mu ne yahud yeeg nasaraan yi commencé di lan commencé di def seeni lan seeni pexe wa najama nifaaq nifaaq commencé di lan di feeñ wa saara almuslimuuna kalganami almutiira eh, fi laylati shaatiya mu ne jullit ñi mel ne rek jur goo xamante ne gàtt yoo xamante ne dañoo tawte ci biir guddi gu sedd guy ñu tasaaroo ci àll mu ne li faqdi nabiyihim ngir ndeysaan e, dem gi yonent sallallahu alayhi wa sallam dem ni mu diisee ci ñoom waaye mu ne xatta jamaahum allahu ala abi bakrin ba yàlla jaare ci abu bakar ñu dajale waat ñoom ñépp ñu takke waat ci benn buum moo di buumu lislaam mu ne laqad kaanat xurubu ridda allati istamarrat multahiba xawaalay sana kaamila mu ne fitna yooyu xeex yooyu ñu doon jàmbaarloog ahlu ridda daanaka diire na lu tollook at wa anafu ma shahida al arab wal muslimun fi taarixihim al askari mën nga ne bokk na ci li gën a metti loo xamante ne euh, lislaam euh, dund ko ci jàmbarloog ñi nga xamante ne ay noon nan mu ne bokk na ci wa abrazu hadihi alxurub wa abrazat mu ne waaye li gën a yéeme xeex yooyu wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum mu ne xeex yooyu ak metti metti gi mu metti mooy wone na ah maanaam góori yàlla yi dëgg-dëgg wone na lu mel ne taxawaayu xaalid ibn alwalid alladi lam yaqum ayu muxaaribin maqaamahu fi munazalati ahli ridda walqada xatta fattatahum ala fitnatihim mu ne amul lenn lu ñëw ci waa ridda lu dul ne taxaw na moom Xaalid temm ngir la ngir fay lool wa kaanat masraxu amalihi raisiya buzaaxa mu ne bi ci gën a fés ci euh, maanaa jaar-jaaru Xaalid mooy xare bi amoon ci buzaaxa loolu mu ngi amee woon ci dëkk waa bani asad mooy fii musaylamatul kaddaab dëkk mu ne wa mantiqatu lbutaax fi diyaari bani tamim wa mantiqati lyamaama mawtinu bani xunayf wa kaanu akthar wa ash e, wa ashraru quwatin qaaraaha xaalid fi xayaatihi mu ne mooy doole bi gën a yéeme boo xamante ne xaalid jàmbarloo mag moom mu ne wa kaana awalu jeysin bi qiyaadati ikrimati bni abi jahlin tàmbali ga ikrimati bni abi jahlin moom moo lan moo jiite woon fa hazamahu musaylama musaylama ci jàmbaarloo googu maanaam musaylama not leen wa baada an fasala euh, maanaam wa baada an fasala ikrimata bin abi jahlin wa surahbil bun hasan fi alqadaai ala almurtaddina fi lyamama bi ikrima jéemee waaye euh, maanaam wéyut yàlla dogalul nga ñaay am saara ilayha xaalid moo tax fii euh, mahmudul misri euh, fashala kàddu googu euh, mënoon na jël beneen kàddu waaw parce que kalimatu fashil loolu nag sooy bind moom léeg-léeg tollu xaal da ngay jël doo ci bàyyi xel maanaam soo newoon rek maanaam li ikrimata ibn abi jahlin jiite woon ak surax bilu xasan tawfiq mujj cee am maanaam mujj ñoo not noon yi ah ca ba yàlla dogal xaalid ibn eh, walid ñëw fa lamma kaana ala bu'di laylatin min al mu'askar xaalid bi nga xamante ne benn guddi moo des ngir mu yegg ci ñoom musaylama hajama ala mafrazati min bani xunayfa bi imraati majaa bun maraara alxanafi قوتها ما بين ثلاثين وأربعين فارسا فأسرهم وقتل, وقتل أصحاب, أصحاب المجاعة واستحياه رهينة لشرفه في بني xunayf avant mu yegg mu jàdd foofu ci benn lan ci benn giir goo xamante ne bokkoon nañ ci problème bi mu daal di leen jaarale yoon daal di leen dëbb ba ñu lan ba ñu nooy nepp waaye jàpp seen njiit comme seen njiit dafa nekkoon koo xamante ne ku am taxawaay la ci ña nekk ña àndoon ak euh, ki nga xamante ne moom mooy Musaylama mu jël kooku def ko lan euh, noonu non waaw waaw ko ngir yóbbu ko foofu euh, ngir am amaana am ngañaay goo xamante ne mën na cee am mu ne bi lii amee waltaqa aljamaani fi aqraba fa la ñaari mbooloo ya daje wastadda alqitaal xeex ba metti lool wa takassarat fi yadi xaalidin tisatu suyuuf mu ne keroog daanaka lu tolloog neuf jaasi damm na ci loxo xaalid waaw ah, ndax eh, combat yu metti mu ne walakin almuslimina aadu eh, fas eh, naam ya imam walakin almuslimuna aadu fastaqtalu lu lu nekk foofu wastadraku naam naam wastadda alqitaal xeex bi metti lool bi shaklin ci façon boo xamante ne lam yasbiq lahu misaal suñu gis lu mel nii mu ne wan hazama almuslimun xatta daxala banu xunayfata fustaata xaalid lakin almuslimuna aadu fastaqtalu wa qaala xaalid yaa ayuha annaas xaalid taxaw wax ak nit ñi wax ak jullit ñi ne leen yaa ayuha annaas imtaazu loolu ci eh, nu mu tuddati ñu koy waxatee ah stratégie guerre yi la bokk xaalid mu ne tàqalikoo leen ci misaal séeréer yi nañu nekk pël yi nekk bambara yi nekk saraxul lay nekk waaw ah, maanaam ñépp ñoo xamante ne am na lu leen yàlla boole ci wàllu askan ak yooyu nañu lan ñoom nañu boole seen biir nekk benn mbooloo mu ne wamtaazu ay tamayazu wanfasilu li na'lama bala kulli xayin wa li na'lama min ay ayna nu'ta xaalit ne leen giir gu nekk xam nga jullit ñi am nañ aws am na lañ am nañ xasar am nañ muhaajiruun am nañu yeneeni giir mu ne giir bu nekk nañu ànd seen biir su ko defee ngir ñu xam tey ana ci ban giir la yéeféri di jaaree ngir lan ngir sonnal jul ba yegg ci julli ñi haali séeréer ñi see ñun kay suñu bor kenn du fi jaaree nga séeréer dañoo mën a bëri waaw tukulóor yi ne tamit lan sunu boor kenn du fi lan kenn du fi jaay de maanaam daal euh, mu nekk daal benn stratégie bu ama am solo boo xamante ne gën na ñëwaat yokkaat courage lan courage u gën na yokkaat li nga xamante ne moom mooy courage u mu ne bi lii amee wa kaana nasru baada juhdin jahidin li ansaari diinillah yàlla dogal nga ñaay jullit ñi am ko wantasara thalathata achara alf daanaka treize ci ay jullit gañe nitu ki nga xamante ne ñoom ñooy nitu musaylama ya wa adaduhum xawaalay arbaina alf muqaatil mbokk yi treize mille contre quarante mille waaw ah, yaakaar naa ñoo leen ëpp trois fois waaye ñoom loolu lañ leen doon xamal ñun du ñu gañe sunuy noon li Omar doon wax ne leen yëg leen ne gañeewuñu sunuy noon ci sunu lan sunu armée bu bu baax wala ci sunu lan ci sunu mën a xeex walla ci sunu lim walla ci sunu jàmbaar mu ne yëg leen ne liñ leen di gañee mooy ëppale giñ leen ëppale ak mbaax waaye saa yu ñu sàgganee balan ba tolloo ci mbonte ah kon keroog ku gaña rek maanaam ku ëpp doole la man ñoom seen gàllaaj moo nekkoon seen ngëm yàlla seen gàllaaj moo nekkoon yaqin gi ñu amoon ci borom bi subhanahu wa taala kon noonu la ngañaay li mujj amee mbokk yi mu ne walakin ذلك كله كان يتضاءل امام البطولات النادره التي قام بها البراء رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين jëleen ci anas ibn malik ci beneen page bi mu ne inna xaalid ibn alwalid dafa wax ak barra bun aazib nee ko ci bisu yamaama nee ko qum ya barra qaala fa rakiba farasahu joo jugal barra nga wax ak gaay mu ne fa xamida allaha wa asna alayh jug yëngalan taskil gaay ah kii gaajo taskil gaay waaw mooy xiirtalar gaay bàkk yàlla kañ ko ginnaaw gi mu ne leen ya ahlal madina e yéen waa madina mooy madinatul munawwara jullit ñi madina moo nekkoon seen capital fa la ñu war a dellu mu leen yëg neen laa madinata lakum al yawm huwa allahu wahdahu wal janna tey moom xalaat moom dellu Madina génne leen ko seen xel tey leen tey moom ah dem ci yàlla rek walla jëm aljanna waaye moom pour xalaat ginnaaw soxna yeeg doom yeeg kër yeeg bitig yeeg magasin yeeg yooyu mu leen maa ngi leen di ñaan dagg leen ko ci xel yi bàyyi leen ko ginnaaw ah, parce que loolu mën na taswis nit nga xàcc ci Abdul Aziz rek rek mu xalaat doomam bi Moodu rek wàccee baab bi <laughs> ah, Abdul Aziz waaw. mu leen daal xel yi fecc leen ci génnee ci la nga xamante ne mooy dellu Madina ah bi mu waxee lii ginnaaw gi summa xamala wa xamala annaas maahu wan hazama ahlul yamaama noonu la ñu gañee waa yamaama fa qaala albarra radiyallahu anhu maxkama alyamaama qaa'idu jaysi musaylama fa darabahu albarra wa saraahu wa axada sayfa maxkama alyamaama fa daraba bihi xatta anqata kon noonu la ñu faatee saay-saay bu bon boobu doon wax ne ab yonent la di musaylamatul kaddab mu indi beneen kii tuddee ko xadiqatul mawt mu ne zaxafa almuslimuuna ila almushrikin xatta alja'uuhum ila alxadiqa noonu la lu tuddati jullit ñi dàq mbokki musaylama yi dàq leen dàq leen ba duggal leen ci benn lan ci benn xur waaw ci benn diggante boo xamante ni génn fa du yomb mu ne wa fiha aduwullahi musaylama fa qaala albarra ya ma'shar almuslimin am na ay tata yu doon am yoo xamante ni miir moo koy wër den ko gis léeg-léeg ci film kabo yi benn bunt bu rëy la sareet ak yëpp day jaar gis militaires yi dañuy taxaw lan ci kaw parce que comme bu njëkk ba moom ah maanaa tooñ dafa bëri woon day gis nit ay nit defar seen dëkk wërale ko miir boo xamante ne ñaari buntu la am ku dugg ci dëkk bi xam nañ la ku génn ci dëkk bi xam nañ la ndax tey gis nga su diine amul rek ah fokk nit wut leneen lu muy aaree bopp ah mbokk yi bi lii amee eh, gaa yu Musaylima ya dugg ca la nga xamante ne moom mooy moom mooy tata boobu biñ fa duggee kii di Barra bun Aazib ne mbokki jullit yi alquuni alayhim dama leen di ñaan ngeen jël ma sàndi ma daa sàndi leen ma ci gaa yi mu ne faxtamala xatta ida ashrafa ala aljidaari aqxama fa qaatalahum ala alxadiqati xatta fataxaha ala almuslimina wa daxala alayhim almuslimin fa qatala allahu musaylama bi ñu jëlee sama waa ji sàndi ko mu cëppeelu ci biir gaa yi di moytu di xeex di moytu di xeex ba ubbi buntu ba far mbooloo ma dugg si na bi ñëwee jàpp leen kàcciri leen ba maanaa ñu nooy nepp waaw waaw ñu mel ne nooy nepp mel ne tigre gi waaw loolu moom mooy eh, payooru képp koo xamante ne da taxaw ngir xeex la nga xamante ne mooy dëggu yàlla gi mu ne wa ala ragmi min dalika lam yadfur al barra bi shahada ànd ak loolu barra bun malik gis nga xoolal jëf jooju rek ak euh, xutuura gi ci lan gi ci nekk waaye ànd ak loolu yàlla dogalul mu dee kon ndekete bëgg dee ci yoonu yàlla taxul lan taxul dee de saa yu yàlla dogalee dee dong ci lay ñëw ci soo gisee loolu lépp barra bun doon ñaan maanaam nañ ko sandi ci biir mooy bëgg gën a yombal asbaab waaye musabbibul asbaab moom ah nammagut eh, la nga xamante ne moom mooy mbir ya mu ne bii liy amee ala ragmi min dalika lam yadfar albarra bun malik bilshahada alladi yashtaaqu ilayha maa kulli nahdatin min nahdaati qalbi nga xamante ne lu mu doon xemmeem la façon xemmeem goo xamante ne man nga ne sax dafa àndoon ay nokkeem fa huwa yuridu eh, an yugmida aynayhi فيجد نفسه في حواصل طير خضر تطير به إلى خيمة الشهداء تحت ظل عرش الرحمن dam doon ñaan mooy ne fa cëpp di xeex di xeex ñoom nag du ñu gàttañ lu moom maanaam la ñu war a def lépp wala lu ko raw dañ koy def ba mbir ma ñëw waaw ba mbir ma ñëw rek waaw ba mbir ma lan ba mbir ma ñëw nekk ci nekk ci nekk ci doon ñaan moom naa jekki-jekki rek rek eh, gëmm rek yeewoo fan yeewoo biir aljanna ci xolu eh, picc yooyee nga xamante ni ñoom ñooy naaw ci aljanna di fanaan fanaante la nga xamante ne moom mooy ronu arsu borom bi subhanahu wa taala waaye yàlla dogul woon loolu moo tax kii di barraabun aadib wala damay saa yu ma léeg-léeg ma ne barraabun aadib barraabun malik lay wax sànq wax naa ko ñaari yoon njuumte la mu ne laqad kaana albarraabu malik ala yaqinin min anna allaha azza wa jalla sa yarzuqu shahaada mu ne moom ku amoon confiance la ci ne yàlla dina ko wërsëgal yaqin dina ko wërsëgal dee ci yoon yàlla bal laqad alima min nabiyihi annahu mustajaabu daawa ndaxte moom barraabun malik di fereeru anas ibnu malik wóor ne ko ne moom yàlla mu ngi ko boole mu ngi ko boole ci mujaabu daawa mooy ñi nga xamante ne lu nu ñaan yàlla yàlla def ko waaw ah, te loolu ki ko seedeel mooy ki dul wax ci bànneexu bakkanam wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyu yuuxa mbokk yi bi lii amee moo tax fa huwa mutma'innun gaayata litminaan ko amoon dal la lakinnahu thiqatu min rahmatillah am kóolute ci lan yërmande borom bi anas mooy nettali mu ne daxala alayya daxala an anasin annahu daxala ala axiihi albarra anas di fereeru barra mu ne dama seeti lan barra wa huwa yataganna ma fekk mu tëdd di eh, di def ay abyaat waaw ah, maanaa di way ay abyaat qaala mu ne ataxsha alayya an amuuta ala firaashi yow anas xanaa da ragal ne da ragal ne ci sama kaw lal bi laay deewee ak ni mu yàggee bëgg dee ci yoonu yàlla fekk mu mu ne waqad qultu waqad qataltu tisatan wa tisina nafsan min almushrikina mubarazatan maa ngi nii tey tëddi fii feebar waaye mubaaraza mooy su demee ba xare jot njëkk ñaari armée yi di tampaloo dañuy def mubaaraza dañuy tànn fele fukk tànn fele fukk maanaa gars yi di la di daje seen biir mu ne yooyu rek daanaka lima ci lim daanaka rey naa ci lu war a tolloog quatre vingt dix ay lan ay lan ay ay mushrikun ay bokkaalekatu yàlla mu ne siwa ma sharaktu fihi lmuslimin bokkut ak ci tampaloo ga nag waaw la ma fay lan la ma fay def ci benn riwaaya mu ne tataganna bi shi'r wa qad abdalaka allahu bihi alquran yow yaa ngi topp sa shi'r yi rek te yàlla jox na la li gën shi'r moom mooy alquran qala anas daxaltu ala albarra wa huwa yataganna wa yurannim qawsahu فقلت إلى متى هذا قال أتراني أموت على فراشي والله لقد قتلت بدعا وتسعين waaw daana tëral naa lu toll noonu ci ay lan ci li nga xamante ne moom mooy ay noonu qissa bu mujj bi mu ne barra yunqidu axaahu anas ibni malik maanaam mu ngi sauvé frère am bi nga xamante ne di rakkam di anas ibnu malik mu ne wa dalla bataluna fi shawqin wa xanin noonu la continuer di mébét lool am shahada fi la ba yow mu fatxu tustur ñëw kooku beneen fatxu la amee woon fii bilaadi faris nga xamante moom mooy perse mu ne laqad taxassana alfursu fi ixda alqilaaci almumarrida pour ma tënk xew-xew boobu perse yi ñoom it dañoo amoon ay tata waaye bokk ci façon tata yi ñu daan def mooy dañuy eh, am ay siwo godoron yu tàng jër ak yeneeni mbir yu tàng yoo xam ne ci kaw lañuy ñuy kii ka ñuy xeexal su bëggee yëg def ay échelle pour yëg ñoom ñuy daal di sotti lan di sotti yooyu itam léeg-léeg soo soo nga gis ko ci eh, maanaa ci film yi walla ci wasaa wasaa'iq yi eh, bi mbir mi melee ni mbir mi doy waar lool mbir mi Euh, doy waar lool mu ne euh, fi ixda qilaaci mumarrada fa xaasarahum almuslimun jullit ñu wër leen wa axaatu bihim ñu wër leen comme ni jaaro ni lam di wëree lan loxo loolu la ñuy wax ixaatatu siwaari bil micsam misaal la bu arabi di joxe mu ne bi xisaar bi yàggee mooy niñ leen wëree bi mu yàggee wastadda albalaa ala alfurs perse mbir mi metti ñoom ñu dem ba jaaxle mu ne jaalu yuduluuna min fawqi aswaari alqalaa salaasila min hadid maanaa ay chaînes yoo xamante ne weñ la yuy lonkaate moom la ñuy lan sànni téer ak xëcc te mën na ñëw lonku ñaar wala lonku lan lonku ñett yooyu yëpp ay façon xeex te xam nga perse yi jamono yooyu ñu ngi bokkoon ci euh, maanaa ñu ñu dàqoon xeex mu ne naka noonu tamit Eh, di ci booleeg godoron yu tàng jër di ko sànni waaw xumiyat binnaar xatta gadat ashaddu tawahujan min aljamri fa jaat tansubu fi ajsaadi almuslimin maanaa di ko sànni gaa ku ñu sotti rek daanaka eh, day doy waar lool mu ne fa allaqa kulaabun minha bi anas ibni malik mu ne am ci benn ci lonk yooyu bu jàpp kan bu jàpp anas kan mooy anas mooy fereeru barra mu ne fama in ra'aahu lbarra barra xawu koo gis rek xatta wasaba ala aljiba ala aljidaari al alxasin noonu la tëbee yëg ci miir tata bi nga xamante ne bu dëgër la wa amsaka bisala bisalaasil bi silsila téye ci chaîne yooyu allati taxmilu axaahu nga xamante ne moom moo lonkaale fereeram bi mu ne wa jaala yuaaliju kulaab li yuxrijahu commencé di kër kër yi pour pour maanaam pour rëccal anas ci li nga xamante ne moom mooy weñ yooyu mu ne fa axadat yadahu taxtariqu wa tudaxin mu ne benn loxo ba ndeysaan bi gaa yi sàndee affaire yi tuuru ci mu ne loxo boobu commencé di takk ah euh, saan façon takk yi nu yéeme mu ne walam yabala ba moom loolu du yitteem almuhim na anas la na anas génn ci weñ yi ne wa habata ila al baada an gadat yadahu idaaman laysa alayhi lahm ba ñu waddandoo ñoom ñaar waaye bi ñu yeggee suuf saxaaba yi ñëw fekk ndeysaan sama waaye loxo bi yépp maanaam mujj nekk yax rek parce que mooy xaw ma asib la ñuy wax wala zaar yu mel noonu moom lañ daan xëppaate mu ne kon albarra yuqsimu ala rabbihi fa yarzuquhu shahada noonu la daan ñaanee yàlla yàlla wërsëgal ko shahada lakin kana albarabun malik farisan la yushaqu lahu gubaar maanaam gawar la woon laqad kaana taqiyan naqiya alqalb ku ragal yàlla ku set xol saafi sarira ku set biir laa yuraddu lahu daawa inda allah ñaanam du deltu ginnaaw laqad kaanat umniyatuhu alkubra la mu doon ñaan mu gën a rëy ci la mu doon ñaan moo di an yalqa allah azza wa jalla shahida mu dajeg yàlla fekk dafa nekk shahid wa dalika li yaalama ma aadda allahu taala lishuhada li ma yaalam ngir li mu xam li yàlla préparel ñii dee ci yoonu yàlla mu ne wa yabdu annahu kaana yuraddidu kathiran qawlahu taala bal axyaun inda rabbihim yurzaquuna ñooñ ñu ngi fa dund dund fa yàlla mu leen di wërsëgal id fama ajmal alxaya mu ne dund waay waay amul lu ko gën a neex inda almaliki almuqtadir ci yàlla mi nga xamante ne mooy borom kàttan wa ma alaaha amul lu ko gën a kawe min martabatin la tuqaddar ci martaba boo xam ne mënee su koo lan nattale mu ne fa lamma stadda alqitaalu wa jaadala al aada wa balagat alqulubu alxanaajir bi xeex bi demee ba metti qaala baadu almuslimina lilbarra ya barra inna rasul allah sal ai sallam qaal innaka law aqsamta ala allahi la abarrak saxaaba yi ne ko yow barra kaay yow barra xam nga ne bokk na ci say lan ci say garaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne na ne loo ñaan yàlla def ko te yonent bi laa yantiqu anil hawa kon dafa am li ñu bëgg ci yow ginnaaw bi ñu demee nag ba xeex ba metti lool mooy ci xeex bi bokk yi nga xamante ne loxo bi mel na noon ñu ne ko nag ah, aqasamta alayka ñu ne ko fa aqsim ala allah ñu ngi lay ñaan nga ñaan yàlla ñu ngi lay ñaan nga woo yàlla mu indil ñu ndimbalam mu ne aqsamtu alayka ya rab eh, lima manaxtana aktaafahum yow yàlla subhanahu wa taala ñu ngi lay ñaan lii nga xamante ne moom la gaa yi lan wàccee ñu nga defal ñu ci ndimbal mu ne summa altaqaw ala qatrati su eh, assuus fa awjacuu min almuslim fa qaala uqsimu ya barra aqsim barra ya barra ala rabbik fa qaala aqsamtu alayka ya rab lima manaxtana aktaafahum ñu ngi lay ñaan yow yàlla nga wërsëgal ñu ñu nopp leen mu ne fa noonu eh, ci noonu desaan la leen yàlla wërsëgal mbir waaw kon eh, kooku mooy barraabun la barraabun malik radiallahu taala anhu wa arda waaw macha allah kon kon dër si baa ngi ñu ñaan yàlla yàlla nu yàlla defal li nga xam ne moo nekkoon ci moom